léegi journaliste nga merci beaucoup on a gagné résultat yi li mu joxe yéen ñëpp dégg ngeen ko benn boo ko yaakaar am li ma leen di préciser nag mooy li ñuy wax intercoalition amul ci droit électoral intercoalition amul coalition moo am li koy wane mooy bi ñuy joxe résultat yi dañ ne Benno Bokk Yaakaar am na juróom-ñetti fukk voix ak ñaar daal ne Yewwi am na juróom fukk voix juróom fukk juróom député ak juróom benn Wallu am na ñaar fukk ak ñeent loolu mooy wane ne Benno Bokk Yaakaar raw na leen lu bëri li koy firnde mooy bu ñu ubbee session assemblée nationale candidat bi nga xam ne moom la benn bokk yaakaar choisir mooy doon président assemblée nationale incha allah li koy firnde mooy majorité bi ñu am bu président de la république namee voté loi suñu loi boobu dafay jàll assemblée nationale li koy firnde mooy. loolu ñuy wax intercoalition bu ñu demee assemblée nationale ay groupe parlementaire dañuy doon te dañuy tas dinañ mat lu met ñeenti groupe parlementaire bu boobaa benn boo ko yaakaar sax avec le jeu des alliances politique mun na ëppale ay député mais li ñu am doy nañu fi mu nekk nii doy nañu sëkk ak barke doy nañu léegi nag am na yoo xam ne il faut ma leeral ko parce que dama dégg représentant yeewu bi ñëw ne dafa am lu mu doon laaj ci commission nationale ca mayuñ ko ko ma leen di leeral ne laaj yi mu laaj ñàkk xam nu élect euh, nu code électoral tëddee la ak ñàkk xam lan mooy commission nationale de recensement des votes dama yaakaar ne booy def politique da nga war a xam-xam dafa am yoo xam ne da nga ko war a xam mais am na laaj yoo xam ne na laaj yoo ne boo ñëwee di koy laajte dafay wane ne xamoo li ngay laaj dafa ñëw ne démb nañ ko may mu xool procès verbaux yi nga xam ne ay originaux la ñu ngi nekk ci ay kees parce que dafa am luñ ciy seet ñu may ko ñetti waxtu maanaam lu daree quatre ba dix-neuf muy jeex comme janax ci biir di xool di xool di xool di lëmbët di lëmbët di lëmbët ba timis jot gisul dara wanewul dara mu génn ñu tëj affaire bi ne nañ ko yóbbu ba suba ma dégg ko ci rajo bi mu ne dafa am fraude bu am Dagana bu am po bu am Podor bu am Matam mais loolu wanewul benn këyit bu koy wane wanewu fa dara loo xam ne am na fraude par exemple boo génnee benn procès verbal ñu ne Dagana am na ñaar fukk ñun amuñ dara nga ne voies yi Dagana am dafa bëri donc fraude la kon ñoom dañoo fraude Dakar parce que ñoom ñu ngi am cent quatre-vingt-dix mille voix fii à Dakar ñun ñu am quarante mille voix kooku donc du firnde ensuite bu fekkee da nga ñëw commission nationale de recensement ñooñu dañuy recenser décompte yi ñun ak ñoom ñoo toog ak commission bi département bu nekk muy 46 département bu nekk ñu indi sa pro sa procès verbal ak say procès verbal ñu compté ko. yëpp mat yi amoon erreur ñun ñëpp ñu d'accord pour rectifier erreur yi ñu def 46 départements yi nekk Sénégal def 8 départements yi nekk à l'extérieur ñëpp d'accord ci kon recensement bi jeex na annulation vote commission boobu mënu ko def bu fekkee nag daf ko bëgg def da koy won ay observation yoo xam ne ñi la toogaloon ci commission départementale wala ci bureau de vote yi ñoo defoon ay observation ci procès verbal may leeral fii ne wala wol wolu sax bañ nañ ko ba ñoom defuñ benn contestation waxuñ dara wax dëgg yàlla il faut ñu seddal leen benn contestation Yewwi rek dafa def contestation di laaj loo xam ne yoon mayu ko ko mais bu fekkee ne da nga bëgg annuler procès verbal dafay fekk nga def ay observation amul benn observation ci benn procès verbal boo xam ne Yewwi def na ko amul et defi les defi je ñu génne benn procès verbal rek laa leen wax nañ ko génne boo xam ne def nañ ci ay observation ñu génn ko mën a leen wax ngeen dëgg mënul am donc dañuy wax ne fii réewu Sénégal caaxaan amu fi Sénégal como du ko jiite koo xam ne mënoo def liste électorale bu baax koo xam ne mënoo def liste candidat bu baax koo xam ne mënoo xam luy commission nationale de développement commission nationale de recensement des votes xamoo luy commission départementale xamoo bureau de vote parce que ñoom bu ñuy ñëw normalement buñ nekkee ci bureau de vote yi dañ fa am représentant représentant bi war na am copie procès verbal bu ñu demee commission départementale seen représentant war na am copie procès verbal loolu du commission nationale moo leen koy jox loolu nag lañ doon lañ leen doon laaj commission nationale commission nationale ne leen man je ne suis pas un d'investigation du fi ñëw pour jox leen ay armes yoo xam ne moom ngeen deful ay grief yéen ko war a amal seen bopp laaj leen ko seen représentant loolu rek mooy wax ji ñu mer bu fut dañ ne woon dañuy gert mais ba ñu ñëwee tey ñu toog di joxe résultat yi ñëw nañ toog ñu joxe résultat yi ñu ne duñu signer procès verbal bi dañu xamul ne ñàkk signer procès verbal bi du dara ki nga xam ne moo war a signer mooy ki nga xam ne moo doon présider commission nationale de recensement te signé na ko donc ñun daal buñ tëddee nelaw dañu nañu dañu bëgg a def Il va dire un mot sous applaudissements. Allez, micro.

dama bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo sant yàlla